ni ñu topp ko. d' accord mi ngi noonu <laughs> euh, Moustapha en tout cas euh, ba tey ci campagne bi mu mel ni que sànnante xeer yi mi ngi wéy di di continuer parce que euh, le candidat de la mouvance présidentielle moom Amadou Ba gis nañu parce que la fois passée ki la di Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi wax ci monnaie bi mais gis nañu mu yëkkati ay kàddu nee na je ne suis pas un candidat qui tenir des promesses irréalistes en tout cas nee na moom du candidat boo xam ne dafay ñëw Euh, dig yoo xam ni euh, kenn mënu ko def maanaam lu kenn mënta def la en fait moom nag euh, mu mel ni que xëy na mi ngi wéy di tontu ba tey ci lii di Bassirou Diomaye Faye mais aussi son parcours moom Amadou Ba est ce que jàpp nga ni tey moo re mënees na mën a njortu ci moom que ni bu dikkee li nga xam ni mooy programme parce que neen continuité la bon li nga xam ni moom dig Sénégalais su dikkee dina ko war a mën a def en fait. waaw xam nga Amadou Ba problème bi li koy xaw a ay diggéem mooy dafa bokkoon ci mbir mi. Mhm. c'est vrai président mooy dogal nag nekk na premier ministre ak yëpp mais bokk na ci mbir mi ànd naak ñoom doxal lan moo ko teye mu àndoo se mu nangu bilan président Macky Sall ma loolu mooy problème bi ma njëkk am ak moom le fait que mu bañ ko nangu le fet que mu bañ mu mel ni ku ko nanguwul bokk parce que da ngay dégg bii ñëw day digg day mel ni candidat opposition quoi. Mhm. mais da war a ñëw kay ne liñ def neex na ngeen ne waa mën nañ leen dolli. indi terre indi berté indi terre indi berté indi teg nañ dolli su ma ñëwee naa dolli naa <laughs> ñu ñoo àndoon. Mhm. luñ ci def. Mhm. defuñ ci dara. mais c'est parce que sénégalais bu ñuy sanctionné équipe la ñuy boole di sanctionné. parce que tey jii bu fekkente ne Amadou Ba li mu xam yëpp ci keppaaru Macky Sall la fi la ko la ko jàngee. Mm. la am nga jëlee Macky indi Amadou Ba teg. demee ni continuité bi nga xam ne moom la ñu bëgg dugal. Mm. or ñu bëri dañ ne continuité boobu soxlatuñu ko mais changement la ñu soxla. Mm-hmm. lan moo waral nag nga bëgg ñoo jël dugal ñu ci continuité boobu sénégalais ànd adhéré d' accord. ne non dañuy dañuy dañuy d' parce que nekkoon na fi ñoom ñoom expérience ñoom ñoo xam te boo dégloo seen discours lu bëri fi ñuy teg curseur mooy lenn rek. Mm-hmm. dëkk duñ ko joxee aventurier ñun dañoo am expérience parce que mos naa nekk ministre mos naa nekk Kébé loolu looy reetaan. <laughs> am na ko moom kàddu yooyu de. <laughs> ñoom ñoom ñoom noonu la ñuy campagner. d' loolu la ñuy campagner dëkk bi duñ ko jox ko amul expérience dëkk bi duñ ko jox koo xamante ne aventurier la dëkk bi duñ ko jox nangam ak nangam ak nangam ak nangam parce que mooy comme ni ma ko waxee woon euh, démb rek ku ci nekk. da ngay xool côté bi nga xam ne sa morom foofu la faible nga fay dóor wala li nga xam ne jàpp nga ne manquement la ci sa adversaire nga fay nga di fa dóor ñoom dañoo jàpp ne ñi jàkkaar loolu comme kenn monsieur ma dégg monsieur le ministre ñu ne noo kon ñi amuñu expérience bu ñu leen dénk nañ leen dénk nañ leen wé wéy di mais expérience boobu ñu am tey ji est-ce que mooy li nga xamante ne euh, sénégalais gis nañ ci seen bopp wala ñoom ñi am expérience bi ñu leen dénkee doxal nañ normalement mais Macky Sall kan moo ko ëpp amul ku expérience parce que station yëpp occupé na ko mais kooku occupé station yëpp teewul ba mu ñëwee di dem ba léegi di jënti problème mu ndaw ñi euh, autosuffisance bu ñu doon wax gisaguñ ko. Mhm. yu bëree bëri bëri dafa dem bàyyi ko fi kon tey ji est-ce que loolu dina doon benn argument boo xam ne yow boo ñëwaatee du ñu ko jaay dina jar parce que boo ñu jaay expérience ku lu ëpp expérience moo jéggi di dem. Mhm. te kooku gis nañ nu mu yoree woon réew mi. am na ci yu bëri yoo ak mu indi réew mi. léegi yow nga ne man noo man am naa expérience kon bàyyil ma ma ñëwaat mais est-ce nit ñi dañoo non kon est-ce que comme da ne amul expérience. moo expérience mën a nekk handicap pour pour Amadou Ba mu koy à ce que mu koy. utiliser bi. continuité bi dafay doon handicap. parce que est-ce que les sénégalais bëgg mais bu ñu bëggoon continuer Macky Sall du toog ne doyal naa sëkk damay dem. Mm-hmm. heure bi daa waroon fekk ñoon ay Macky boo demee nu ñuy def ay Macky bul dem. ku ne di taxaw naan kan mi taxaw ne doyal na day dem koo xamante ne au début nañ ñu ko doon jaayee ak nu mu mujjee si ñoom waxtaan bi problème am na. bokkul parce que Amadou ma ñu doon jaay ak Amadou mi ñu gis nii léegi du benn. Mhm. Amadou ma ñu doon jaay ñoom ñëpp ñoo àndoon tafu di ko jàppale. Amadou mi gis léegi gis nañ ci fin bi sax ñenn ñaa commencé dem di ko jàppale ji mais da gis ne. Mhm. jafe am na seen biir ay problème am na seen biir mais ak lépp lu ci lu ci lu ci lu ci mën am rek man je pense que bu doon euh, campagne warul mën a fàtte li nga xamante ne moom la président Macky Sall def. téye ko mhm. nga teg ko nga ne je ferai teg naa ko def nañ teer def nañ ñi def nañ ñi def te président ko def président bi pour man waroon na gën a mën a charmer électorat wu Macky parce que dafa ñoom ne ay makiste lañ. Mhm. comme ni ma amee ay waddis am na ñoom ne ay makiste lañ. la ñu gëm c'est-à-dire Macky la ñu gëm. léegi ñooñu gëm Macky pour man Amadou ñooñu ba léegi daf leen naa desee dragué te ngi leen mënoon dragué mooy sa discours da nga ciy boole yenn sa ay Macky mais boo si discours boo ci boole parce que moom fenn la mën a nappee. Mhm. mooy électorat ñi nga xamante ne mooy waa Bennoo la mën a nappee.

Pastef ñiy dooleem ne est-ce que ay militant lu ñu ay militant ñu si bëri ay sympathisant lañ. Mhm. dañoo am cofeel bi noonu daaw topp ko ni mais jegewuñu sax lu lu jëm ci lu ni mel jënduñu carte bi jënduñu carte bi léegi tey ji mane am na makis yoo xamante ni ñu ngi toog di ñoo ñu amul daf leen waroon yee maanaam fexe ba rassurer leen rassurer makis yooyu mhm. ni mu leen di rassurer muy gëm loo leen ni man ak seen waaj yi ñoo ànd maki wàccul mais nga jàpp ci li nga xamante ne Macky def na ko fi ci ay réalisation ak loo xam ne day jëmmal Macky nga jëmmal ko hmm. su ko defee Macky yooyu dinañ gis seen bopp gis na kii kat dafay continuer li Macky doon def bien que ni Amadou bala kon changement dina waaye dafay continuer mais bu ñëwee on a comme l'impression que ni doo ko ci gis lu bëri. Mhm. Eh, Macky Sall mën nañ toog jàpp seen ñàmbur te Macky Sall toogee mën na doon loo xam ne du ko avantage. du ko du avantage. Mhm. mais mais ci loolu gis nañu ba tey waa PDS ñi ngi weddi ah, parce que ñoom ba tey mënaguñu dem rangé wu. Euh, ci mhm. benn candidat <clears throat> euh, gis nañu Karim Wade mi ngi wax kenn ba tey demagul euh, jàppale ki que ce soit muy Amadou Ba keneen ku manti doon est tey jàpp nga ni parce que Ba fi mu nii bu ñuy en tout cas course bi saa su ne dañu naan Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye tey la fait que euh, PDS bu fekkonte ni dem na rallier fekk ji Amadou Ba jàpp ngeen loolu aussi tamit euh, dina mën a peser ba ñu mën a wax que ni xëy na Amadou Ba dina mën a jàll premier tour wala deuxième tour. waaw pour le cas du PDS il faut que ñu xam ne PDS lan moo des PDS lu des PDS. lu fa des. loolu mooy question bi ñu war a poser ba pare parce que bu ñu nee PDS dafa peser cinq cent mille voix mais cinq cent mille voix yi naka na lu xew ba moom cinq cent mille voix. entre temps am na lu xew lan moo des PDS man loolu mooy question bi posé man tey ji bu fekkoon ne dañuy dañuy dañuy dafa am ñu ñuy dragué wala lu ni mel man je préfère l' appareil l' appareil de Bougane que l' appareil de PDS. Hmm. waaw Mm. je préfère waa kër Bougane que waa kër que waa PDS. PDS du lu daw de. non du lu daw mais lu fa des laa wax. non bu dee bu dee bu dee wàllum PDS moo ëpp Bougane. Mm-hmm. loolu werante ko PDS moo Bougane mais la fa des moo tax may wax. mais Bougane tamit mosagul réussir na réussir na un peu partout à l'intérieur du pays. département boo dem lu mu gàtt gàtt di nga gis koo xamante ne kat boo leen sondee ñu man Bougane laa àndal te loolu c'est pas valable moom département ak dëkk lu mu sori sori ak département boo fa demee lu mu gàtt gaa di gis kenn wala ñaar ka loolu PDS am am na ko waxuma loolu waxuma mm-hmm. mm-hmm. am na ko waxuma loolu mais li des PDS laay wax ba tey lan moo des PDS actuellement foofu la question bi nekk xam nga su fekkonte ne PDS dañoo jóge ci élection yi rek mu dem jàppale ji diw su mën naa ne PDS moo ñëw mm-hmm. mais déjà yaa ngi dégg ñu ne vingt cinq fédération xaw ma ñoo dem mais dafa war a ànd ak sensu li nga xamante ni moom la sa militant yi bëgg. Mhm. toujours ñuy di exemple ka ba mu demee ba mu demee am wàll ña ko ña ña ko jàppale est ce que am na lu mu ko dolli dolliwul dara. Diouf mhm. fa mu yemoon fa la yemaat 7 pour cent yi Djibo yoroon da dem fekk ji beneen camp tey ji su fekkente ne PDS dafa def benn choix boo ne dafa contradictoire par rapport ak jaar-jaar mais militant duñ ko topp mhm. ñett ak ñeent ak juróom juróom benn nit ñi nga xam ne ñoo ne mhm. présidentielle ñi ngi si jomaay toog effectivement waaw am na ñoo xam ne dem nañ ci Amadou Ba toog mhm. am na ñoom sax ñu ngi ci Mohamed Boun Abdallah Dionne toog waaw léegi ñooñ dem nii tey ji dindi leen ci ci ci ci ñaata ñooy des mhm. kenn xamul lu des ñu des PDS tey ji fan lañ bëgg a dem bu ñu leen yóbboo fii est-ce que danañ fa dem bu ñu leen yóbboo fële est-ce que fa dem moo tax may la bu fekkente ne benn benn boucle lu diis la mhm. nga natt bugaan ne cinq la kële cinq mi ñu ngi toog jàpp seen jàmbur mais ki def dix trois yi aw nañ ci Amadou deux yi aw fële yow nga dese benn après léegi nga taxaw nga ne PDS ñoo ñëw kan nga yóbbu fekk benn nga indi mhm. loolu moo tax ma jàpp ne tey jii nekk fi sax di leen courtiser ak def yenn yi nii man je pense que parti la boo xam ne tasaaroo na ba pare mhm. te parti bu tasaaroo am benn taxawaay bi nii euh, je ne pense pas que mu noom mu mu yomba jafeeti mu mu yomba dajaleeti te te lii nga xam ne fu ñu jëm rek mooy malheureusement ay parti la yoo xamante ne boo moytu dañuy disparaître et c'est dommage PDS PDS après 2024 boo moytul moom ak APR yëpp dañuy Euh, boo métu dañu am jafe-jafe quoi parce que PDS sans Karim Wade lan lay doon hmm. amu fi benn leader boo xam ne mën na taxaw nga am benn gars yi ne la yow yaa ñu jiite boo jiitee gars yi dañuy jóg romb la hmm. APR sans Macky lay doon dina am benn el boo xam ne dañuy ànd jëg Amadou Ba est-ce que Amadou nañ ko nangul bu ñëwee Amadou Ba est-ce que Abdoulaye Daouda Diallo day wéetee beneen pal pàcc bi mhm. est-ce que Diouf Sarr est-ce que est-ce que donc bëri na yoo xamante ne après après 2024 incha allah nañ ci xam dara moo tax euh, parfois structuré parti mhm. am numéro deux taxaw taxawaay bi loolu moo tax mu am doole gis nga am na benn moment xam nga Pastef administrateur du parti la amoon mi bi Birame Birame Souleye Diop moo nekkoon administrateur bi mhm. Ousmane Sonko defaat benn changement daal di réorganiser bi def ko ay vice président am ay secrétaire ñi yor image nangam nangam daal di organiser waat lépp lépp lépp bu mu ko organiser waat dafa def président def mhm. la teg Bassirou Diomaye Faye. parfois da ngay menacé wu. Mhm. Macky Sall tey ji bu amoon numéro 2 bu yàgg li yëpp coow lépp du yaay doxal yow yaay doon sama candidat. Mhm. teg ko gars yi ko mu doxal nga def ko sa premier ministre wala président assemblée nationale. xamal ko sénégalais ba ñëpp naan yii kii de mu wax dëgg yàlla mais su boobu nag boo ko defee nga mhm. doo yàlla. ba ñoom ñi ñëw sax bu ñuy wax continuer sax da nga wax continuer di gestu di xool fu ne parce que dañ naan <laughs> continuer bi ñu wax est ce que nit ñi moom lañ bëgg waaw da commencement ñu ñu ñoon jéem a def yi fu njublu naan euh, continuité dans le changement xaw ma changement dans la continuité genre yooyu di jéem a <laughs> di waaw di jéem di jéem a mais parce que xam nañ ne usure du pouvoir dafa am maanaam yàgg yàgginu pouvoir dafa dafa dafa dafa am te boo boo boo seetloo nguur soo commencé fëgg dix ans rek xomaat dafa lay commencé dugg. Mm-hmm. da ngay commencé di jàkkaarloo ay crise ñu lay commencé di défier ngay commencé di am am am am am te loolu ak sa autorité nu mu mënti toll. Mm-hmm. ko war di préparer suur ko dem balaa moo jot. mais su ko commencé passé rek da gis ne boo nee benn ñëpp naan lan fukk nga commencé premier mandat li si ëpp da wax ñëw non bàyyi leen ko dafay sumb deuxième mandat bi nga fóot. balaa nga bëgg troisième noonu dañ weeral nga dem nag lu ñu def bàyyi ngay sumbaat leneen moo waral boo amee deuxième mandat ci fin bi toujours da nga am ay euh, du du du du yomb du yomb lu ñu mel ko boo jëlee exemple général de Gaulle ak la mu defal français bi ak la mu taxaw yëpp mhm. ba mu amee référendum boo xam ne daf leen koy soumettre en 1969 di teg référendum bi di euh, régionalisation bi ak réforme régionalisation bi mhm. ak Sénat bi ay proposition yoo xam ne simple mu ne bu ko non bi emporté man damay bàyyi damay dem mais gars yi dañ ko dóor non ca guddi mu daal démissionné ne dem démission mhm. lay lay nguur gi mhm. mais parce que boobu usure mi ngi commencé woon dugg nit ñi ne abi mi ngi commencé am fëq na fukki anam fukki atam di dem ñu bëri dañuy commencé ne bon tiens pourquoi lii donc loolu lépp Mm-hmm. usure pouvoir lay indi moo tax ma ma ma ma ma jàpp ne léegi nag toujours sa deuxième kii ñëw day am problème parce que bu bëggee jaay nit ñi continuer dañ naan duñ ko dégg mm-hmm. parce que déjà li fi nekkoon boo ko bëggee continuer duñ ci d'accord. d'accord waaw ah. euh, d'accord mi ngi noonu ah les internautes ba tey yéen a ngi ñuy bàyyi xel ci seen émission bi la di le point de la rédaction tey mu ànd ak Moustapha Mbaye Mahfouz nag tey dafa am ci yum ne moo tax mu wuutu ko mm-hmm. ci euh, présentation bi xam naa ni tey. namm <laughs> namm nañu ruwee yi ak comme ni ñu ko <laughs> ni ñu koy waxee les internautes. mais yéen euh, Mahfouz sot la. waaw waaw waaw yenn saa mu tànc la nag. ak yow nga jàppale ko <laughs> mais adduna adduna du de ak xaw nu mu koy waxeeti eh, loolu anyway mi noonu mais ñu ñëw Moustapha parce que gis nañu langue politique yi en tout cas ñi nga xam ni eh, ñoom ñuy woy les influenceurs. tey mm-hmm. li ñu njëkk a gis peut-être moom mooy ñenn waykat yi yenn ci xëy na ñiy théâtre mais instant bi gis nañu même les lutteurs aussi tamit ñoom tamit commencé nañu jël seen ay responsabilités di génn di ànd ak seen ay ay ay di campagne en tout cas phénomène boobu noonu mu mel ni que léegi bu mooy ñoom dañu daan toog xëy na jàpp seen bopp wala ba ñu wax sax dañu fësal mais léegi dañu commencé di assumer seen ay position mu nekk loo xam ne en mu ngi bëgg a euh, tasaaroo ci réew mi loolu naka nga ko nga ko gisee naka ko jàngate mais dans un pays normal ça doit pas poser problème mm-hmm. bu dee ci dëkk bu normal lañ nekk Sénégal nga gis koo xam ne day toog mu ne mbër mi gis naa ko mu battre diw campagne kii dina xam ne man la ko digaaleel <laughs> xam nga li ma la wax. parce que dañuy jàpp ni euh, mbër mi nu mel am na ñoom tamit joué nañu ci en tant que supporter. merci non waxuma supporter sax. Mhm. ponk ñi ñële laay wax ñu yor nguur gi. par exemple nga taxaw. Kébé dem ànd ak opposition wala Kébé am idée am opposition la àndal. Mhm. léegi suba Kébé bu ñëw di déposer wala mu am benn euh, manifestation bi muy def. Mhm. mu demande ay fonds d'appui wala aide. ci ministère de la culture wala lu nu mel ministère bi du ko jox parce que dañ naan opposition bokk tamit. parce que Modou ci làmb ji du Modou Lo mi nag parce que Modou Lo bu da ngay gis bu day yaraax kenn du ko topp. Mhm. parce que est-ce que ki leen di woote neex na leen. Mhm. bu leen neexul duñ ko si wuy si mais bu duggee tous dem na ni mais nii dañuy ànd ak moom est-ce que yaa ngi fàttaliku amoon na fi ay jamono campagne électorale ñi ay sëriñ ngañ daan àndal ñi àndal comédien bu nekk. comédien daan jël ci biir ànd <laughs> mais mais xam nga loolu. loolu xam nga xam xam nga lu mu doon wane. Mhm. te pourtant comédiens yi dañoon dem business dem bi na dajale seen xaalis caravane yi dañ leen daan jiital ci camion ñu nekk di fecc bu mhm. defee xale yi leen seen daw ñëw buñ dajaloowee ñëw ñu def ambiance après leader bi ñëw taxaw surtout local yi mhm. local yi moom dañuy jar bu baax comédiens yi parce que gars yi caravane yi ñuy def ci koñ yeeg yooyu dañ leen di utiliser ñu sol ay t-shirt gars ñëw ànd ak moom mais xamuñu ne sénégalais bi def na dichotomie parce que tey ji am na koo xamante ne même boo ko indiloon saawaay euh, Beyoncé mhm. mosol ti certain du tax ñu votel ko mhm. mën nañu ràññee ñaari personnage dañuy ràññee ñaari personnage bu yàgg dañ koy ràññee bu yàgg parce que dañuy xam ne du kii la fal du kii la ñuy votel kii dafa ñëw rek pour parce que dafa nekk benn agent communication li def li nga xamante ne mooy communication mais du moom la ñu a fal du moom la àndal mhm. léegi ràññee googu ñu ko ràññee nag mbër mi wala célébrité bi lépp lu mu ci def da ko war dem ak xel mu bañ a jël carrière am di ko hypothéquer c'est très important parce que dañu am carrière tamit bu ñu war a préserver mm-hmm. moo tax l'idéal serait boo nekkee boo nekkee ci dëkku mel ni Sénégal mm-hmm. ngay influenceur ak yu ni mel ak yu ni mel nangam ak nangam eh, pas influenceur mm-hmm. mais nga am foo toll nga xamante ne boo jógee ne Amadou Ba am ngay fans ñoo xamante ne jomaay lañ àndal mën nañ am leen metti seen xol nga jóg ne jomaay say biir fans am nga si ñoom ne Amadou Ba lañ mën na metti seen xol te yow doo politicien professionnel kooku mën naa toog jàmburam c'est pas la même chose ak nga xam te la moo ko war hmm. am na ñuy def musique engagée sa wàll hmm. ñooñu seen gis-gis la seen yoon la mais lépp loo ci def rek pour man na ko assumer pleinement mais li li li nit war a xam rek mooy indi xaajaat bi daal xam ne ñii nga xam ne dañoo engagé c'est des citoyens mm-hmm. am nañ droit engagé fa ñu war a engagé. gis nañ fi Youssou Ndour en fait. gis nañ fi Youssou Ndour fekkee ma ci boole ba mu engagé si ci boobu ci opposition bi la doore. Mm-hmm. président Macky Sall dañ fa après gars dañoo nangu xam ne Youssou Ndour ci nguur gi la bokk. Mm-hmm. buñ ko ministre après dañ ko xam après jeex na loolu amul problème. mais bu fekkente ne nit ki da koy def tamit yéen ñi yor nguur gi da ngeen war a comprendre que ne kii di opposé ak yow dafa am droit di opposé mhm. mais pas parce que c'est un rappeur boo xam ne. sénégalais la comme tous les. sénégalais comme tous les sénégalais. Mhm. am nga droit ne man diw àndal. mais am droit boobu nga xam ne diw àndal warul tax yow mi nga xam ne ministre nga tey ji mu ñëw taxaw sa buntu bureau ne damay wut fond wala déposer déposer dara pour ñu joxe nga ne ko doo am demal si fi nga ngay joxe moom moo ko li keneen ak keneen a ko moom. Mhm. mais boo nekkee ci dëkk bu mel loolu moo di ragal engagé wu surtout boo nekkee ci yenn poste yi da ngay dëkku ne yii damay ragal a politique damay ragal a fés parce que su ma ko defee amaana mën nañ ma mën nañ ma mën naa am jafe-jafe suba su ma bëggee def dara wala ma bëgg organiser dara moo tax damay toog noppi ñu bëri dara day am si dëkk bi duñ ñemee sax tuute wala ñu bind parce que dañ naan yii su ma ko defee rek après gars mën nañu rek sama ndigg mën nañ maa sonal hmm. tiit yooyu ak yooyu am yooyu la ñi fi ne mooy seen ay sentiment ak seen i idée Amadou Ba Amadou Ba ñu bàyyi la ñu faree ak Amadou Ba ñi faree ak Bassirou Diomaye ñu bàyyi la ñu faree ak Bassirou Diomaye que le meilleur gagne mhm. mais man Bassirou Diomaye laa faral képp ku ànd ak Amadou Ba doo nit wala Amadou Ba laa faral képp ku ànd ak Bassirou Diomaye doo nit loolu man nit ku xelu du am du am raisonnement boobu noonu Modou Lo ànd ak Amadou Ba bàyyi leen ko ngeen seetaan ka ak Amadou Ba nit dof ànd ak jomaayam bàyyi leen ak ak jomaayam ngeen seetaan ka ak jomaayam peut moom jomaay moo ko doy gis ne boo la sànn bàyyi ko mu dem mhm. peut bu demee ba xelam dellu si mu gis ne fi ma nekkoon ay caaxaan la ma dem fa la dina leen fekk ji ñële mais malheureusement euh, qu'est-ce euh, da ngay gis ne dañuy dañuy nekk ci benn côté sànni xeet ñenn ñi euh, dugg leen ci yenn yi euh, xas leen te pour man jaru ko parce que réew mi ñoo ko bokk nag après tout euh, il faut que ñu ñu ñu ñu ñu dellu si xel maintenant ñu ñëw nag ci pertinence utilisation bi ñu leen di utiliser. Mm-hmm. man gisuma ci benn pertinence. gisoo gisuma ci benn benn benn pertinence yow Modou Lo bi ngay jël nii par exemple Modou bi nga jël Modou Lo xam nañu ne c'est pas un mm-hmm. bi ngay teg sa kaw kanam oto. ngeen dëgg wër wër mbedd parcelles yi ñaar ñett di leen topp loolu xanaa gàcce la sax kenn topp leen. xam nga am na ci xale yoo xam ne ñoom génn gis Modou Lo rek ñooñu loolu moom mbégte la ci ñoom. waaw mais génn gis Modou Lo est-ce que loolu moom Modou Lo la ñuy votel mhm. moo tax amul pertinence. xëy na pour attirer foule bi ñu ñëw. <laughs> ñu ni dajale na mbooloo boo boo attirer foule bi te foule bi ñëwuñu voteluñ la bëgguñ la taxaw leen a jóg indi leen ban sens la am. Mhm. yaa ngi nax sa bopp di man je préfère responsable yi nga xamante ne ñooy responsable locaux yi ñu génn def seen caravane taxaw mais tamit am na benn influence bu ci wut maanaam Modou Lo sax mi ngi xeex ñun. je si je me fais comprendre mm-hmm. Lo ñun la àndal comme yow boo bëggee Modou Lo war nga ñëwal ànd ak ñoom comme mm-hmm. ñun la àndal xam nga li ma la wax mm-hmm. a affaire a ratisser large yooyu quoi Modou Lo ñun la àndal boo ko bëggee jéem a moo tax may sénégalais dañoo yeewu actuellement gëw ma ne du influenceur moo leen di xëcc gëw ma ne du mbër moo leen di xëcc gëw ma du waykat moo leen di xëcc déedéet parce que